ahousubillah min sheytaani rajim bismillahi rahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Modou Abdoulaye Mbacke moo leen di nuyu di leen ziyaar ci koor gi eh, ñu ngi ci jeexantalu koor eh, tey nag ñu bëgg a waxtaanee ab tomb tomb bu am solo boo xam ne ci koor la bokk Euh, ñu koy tuddee muurum koor ñu bëggoon cee xamle luy muurum koor ak luy àtte bi ak njariñam ak nuñ koy génnee ak ku ko yayoo ak lu tax ñu koy génne ñu tàmbalee ci xamle luy muurum koor muurum koor buñ ko waxee nag liñ ci jublu mooy lu ñuy génne la ci loo xam ne nit ki da koy am muy ab dund wala loo xam ne mën naa jar ab dund mu muy alal ju mu am mu war koo génne jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yayoo loolu nag ñu ngi koy def ci fan yu mujj yi ci weeru koor loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa nekk farata farata nag mooy loo xam ne daf la war te wàccu la fekk defoo ko wàccu la ñépp nag la war ñépp li ma ci jublu mooy war na góor war jigéen war mag war gone war gor war jaam loolu nag nin koy firee mooy ki nga xam ne daf ko war a génne te amu ko kay kilifaam moo ko war a génne moo ko ko war a génneel kon loolu mel na ni am na solo ndax gisuma genn genn jaamu yàlla gu yàlla santaane goo xam ne noonu la yaatoo ba ba wàccut kenn julli li muy am solo am solo warul gone fi toll nii am na ci jaamu yàlla yoo xam ne danga am foo toll foo xam ne dalay wàcc waaye muurum koor moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul nag ci alquran direct waaye sunna la yoo xam ne xadisu om ibnu omar ñëw na ci xadisu ibnu abbas ñëw na ci mu ne yenent bi sallallahu alayhi farataal na muurum koor ci góor ci jigéen ci mag ci ndaw ci jaam ak ci gor li tax ñuy wax jaam mooy booba njàppum jaam am na ndax fi la ko lislaam fekk lislaam moo ko fi indi waaye da ko fee fekk mu saxal ci mu saxal ko ànd ci te di ko dindi par ndànk-ndànk ndax lislaam lim gëm mooy nit ñëpp a kenn warta jàpp kenn jaam bi mu ñëwee nag da ko fee fekk mu ànd ceeg mu ànd ca loola ndax dafa nekkoon loo ko xam ne daanaka àdduna bi yëpp a ko doon def te tëb tëb dindi ko mën mënul woon gaawee noonu te sabab bi nga xam ne moom la lislaam saxaloon ñu mën caa jàpp jaam mooy jullit ñi ak yéefar yi tasee di xeex jullit ñi gañe leen jël leen jàpp leen ay jaam loolee rek la ca la ca saxal waaye fekk aw nit xeex xeexak ñoom ba man leen jël lañ am jàpp leen ni ay jaam comme niñ ko xamee loola lislaam àndu ca saxalu ko it waaye daf ko xeex ba mu jóge fi gis ngeen ba bari na loo xam ne lu ñuy def la ci lislaam loo xam ne buñ ko defee ay njuumte war caa am luñ ca fay day wax ne nañu goreel ab jaam lu mel ni tey dog ci ramadaan bu fekkee nit ki dafa euh, tey Euh, wóorul weer euh, dog benn bis te tay ko day woor ñaari weer bu ko mënul day daal di goreel ab jaam bari boo waatee tamit te la nga waat du dëgg bu boobaay da ngaa war a goreel ab jaam ak ak ak yu mel noonu yëpp yi nga xamante ne nii euh, mu ngi ci zakatul fitre nag muy muurum koor yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw bi mu ko faratalee dafa wax ne euh, jaam bi de bu wooree ba ramadaan bi jeex jëfam lépp jëf jëf jëf muy muy muy koor gi dañ koy aj ci diggante asamaan dañ koy aj du yegg ci suñ boroom fekk nit ki génnewul muurum koor wala génneeluñ ko ko jaamu yàlla googu du yegg ci suñ borom loolu nag Euh, lu lu mat a xam la moo tax ma ne woon tey naa soññe ci muurum koor ñu bañ koo sofantal xam ne benn farata la farata la mooy loo xam ne boo ko defee wàcc na la danga nga ci am tuyaaba waaye boo ko deful tamit mën nga caa jële bàkkaar te bàkkaar mën naa indi merum sunu borom wala dóori sunu borom kon nag euh, képp ku dégg euh, bataaxal bi liñ ci jublu mooy fàttali rek ndax xam nañ ne du du du du ci yoon wi lañ tàmbalee génn murum koor waaye dañ ci soññe ngir xam dayob murum koor ak njariñam mooy mooy lan ginnaaw bi mu nekkee farata li tax mu gën a gën a am solo ginnaaw jëfe ndigal gi mooy que sa jaamu yàlla gi nga jaamu yàlla ci biir weeru koor wi waaye loolu li ma ci jublu mooy mooy koor gi ndax loolu moom moom moo gën a wér am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne jaamu yàlla gépp la waaye li gën a wér mooy koor gi ci boppam lañuy aj du yegg ci suñu borom feek nit ki génnewul murum koor wala génn génne luñ ko murum koor loolu moo tax bu ko defee nag ñu doog a yëkkati euh, wooram googu muy tuyaaba koor gi doog ko doog ko yóbbu ca suñu borom gaaral ko ko kon loolu lu lu mat a def la ndax koor li ci sunu borom dige lépp ci yiw waxoon naa ko ca tàmbali ba njëggal nekk ci ajjana nekk ci goreel nit ki ci sawara nekk ci eh, ay tuyaaba yi bare bare bare nekk ci eh, loolu eh, ëpp naa jaaxaane kon loolu boo ko defee ba noppi sonn ci noonu ba noppi te yëggut ngir loo war a génn rek loolu ëpp naa ëpp naa def kon ñu ngi ci soññ mbokki jullit yépp ku ko dégg xam ko jàllale ko te fàttali warna ci ci balaa balaa waxtu wee jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag euh, li tax ñu koy génne ginnaaw loolu ma tudd ci benn xadis daf ne tuhratun lissaim loolu day day seetal kooruk nit ki da koy sellal ndax njuumte yi nga xam ne xëy na nit ki def na ko ci biir koor gi te yëgu ko moo xam yu mu yëg la moo xam yu mu yëgut dafay dafay sellal koor gi da koy gën a rafetal da koy gën a taaral loolu benn bokk na ci njariñi murum koor beneen bi mooy tuamatun lil miskin dafay nekk dañu leel ab miskin mooy jox ab miskin lu mu lu lu mu lu dunde loolu niñ koy mën a leeralee mooy xër gi nga xam ne lislaam xër na ko ci ci ci ci ci euh, jàppalante ci dimmalante ndax euh, bisub iid muy bis boo xam ne jullit yi dañ koy feetu ginnaaw bu ñu wooree weeru lëm bis boobu lislaam santaane ci nga bégal sa njaboot ci ay xéewal ci ay bernde lislaam bañ jàpp ne ñëpp dañoo war a nekk ay ay mbokk ñëpp nekk euh, ay ay ay dëkkandoo bis boobu mu bañ ko ci tumuraanke wala koo xam ne da ngay dem di laaj loo xam ne moom ngay xéewloo ci bis boobu bis boobu daal ñëpp dañ cee war a bëgg kenn waru cee génn di laajte wala euh, nga nga am loo xamante ni mii soxla nga ko ci wàllu xéewal wala bégal sa njaboot mu di la të moo tax lislaam indi ci farataal ko ne bu bis boobu ñëwee nañ fekk ba nañ fexe ba doyloo jullit ñëpp ba kenn bañ a génn laaj ba ñëpp am lu ñu mën a xéwloo bégalee seen seen seenu njaboot loolu nag day wane toujours gëm yàlla euh, ni ko sunu borom boolee ak jëf ju baax jëf ji nga xam ne dafay dafay dem ci nit ñi loolu waxoon naa ci mooy fépp foo xam ne ci alxuraan dangay dégg mu tudd al iman tudd al amalu saalix muy gëm yàlla ak jëf ju baax euh, loolu da koy da koy wane ñaar yooyu dañoo lënkaloo lool moo tax mën ngaa waat ne euh, gëm yàlla du am mukk du sax feek nit ki boolewu ko jëf ju baax maanaam foog feek feek nit ki bëgg li nga xam ne moom la bëggal boppam bëggalu ko tamit ay ay moroomam loolu xadis sax indi na ko muy laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi mooy kenn ci yéen ak ngëmam du mat feek li nga xam ne moom la bëggal boppam bëggalu ko moroomam mooy faw li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom tam bañ bañ a bañ a bañ a yem ci yéene rek ndax yéene ci xol rek lay lay lay lay lay yem waaye dafa war a yegg ci jëf bu fekkee ne am nga kàttanu jëfe ko kon lislaam dafay taqale toujours ngëm jàng nañ allazina allazina amanu wa amilu salihaati tuuba lahum wa xusna maab wal asri inna al insana la fi xusri illa allazina amanu wa amilu salihaat loolu bari na ci alquran lool li muy tënkale li muy li muy tëkkale diggante euh, gëm yàlla ak ak jëf ju baax te dimbali sa mbokkum jullit ci jëf ju baax la bokk gis nga ci beneen aaya day wax laysal birru an tuwallu wujuhakum xibalal mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil axiri wal malaika wal kitab wan nabiyina wa aatal maala ala xubbihi zawil qurba wal yatama wal wa wabni sabil gis nga kon ndeke gëm yàlla ak jëf ju baax ñoo ànd waaye tamit ak dimbalante ñoo ànd euh, moo tax loo mën a julli julli julli mën a woor woor woor te li la yàlla wërsëgal mënoo ko génne bokk ci ak jaamu yàlla yi loolee lislaam nee na sa gëm yàlla des na kon euh, zakatul fitre muy murum koor daf ñuy gën a xamal rek ne lislaam ni mu yaatale lislaam bëggul euh, nit dend ak nit gis muy tumuraanke mu mu mu bàyyi ko te yittewoo boppam moo tax euh, li ñu tuddee égoïste nit koo xam ne ana ana rek lay wax mooy sama bopp sama bopp li nit ñi nekk yitteelu leen loolu du jikkoy di jikkoy jullit kon euh, loolu moom moo waral ñuy joxe muurum koor ki nga xam ne moom la warit li ma ci waxoon ginnaaw ki nga xam ne muy góor wàccul góor wàccul jigéen wàccul mag wàccul ndaw naka la ñuy leeralee loolu ci ñi nga xam ne amuñu ko dañuy wax ne euh, ki nga xam ne euh, moo ko war a génne mooy képp ku ko mën a génne danga ko war a génne ñi nga xam ne mënuñu koo génne ñaleen yilif yor seenub dund ñoo ko ñoo ñoo leen ko war a génneel liñ ci mën a joxe misaal mooy lu mel ni boroom kër nit ki ci biir këram buy génne euh, zakaatul fitr muy muurum koor da ko war daa war a génneel boppam génneel ay doomam ndax ay doomam amuñu amaguñu luñ joxe bu fekkee ne nekkuñu majeur dem bay liggéey di am xaalis génneel tamit soxnaam si nga xam ne dundal ko moom la war bu fekkoon ne ci jamonoy jaam lañ nekk jaam moomul dara bay mën a génne jaam dañ koo moom kon kilifa wala sangam ci boppam moom moo koy génneel euh, niki noonu boo yoree ay emploi yor leen yor seen dund ak yooyu te yoruñu luñ génne yow it yaa leen yaa leen war a yaa leen war a génneel kon euh, képp koo xamante ne yaay kilifaam dundal ko war la kookee war nga koo génneel asaka ci luñ koy génne nag euh, liñ koy génne ci jamono ju yàgg mën naa ne euh, ci dund lañ koy génne ndax loolu moo saxoon ci jeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax li ñuy tuddee xaalis di ko weccoo jamono yooyu amul woon nii mu amee moo tax ca dund ba nga xam ne moo gën a digg doomu ca la euh, askan wa di dundee ci barab bu mu mën a doon ca loolee lañ ko daan génne euh, niñ ko daan natte it mooy loxo bu digg doomu la ñuy la ñuy jël nga tibb sa ñaari loxo ci ceeb wala ci suuna wala dugub wala lu mën a doon loo xam ne dañ koy jëfandikoo ku ci nekk def ko muy saawa loolu noon noon noonu la ko arab yi daan defee waaye jamono dafay dox moo tax njiir yi boo ko xoolee ngir yi mooy école yi nga xam ne école yi yi nga xam ne ñooy leeral l'islam euh, di di di ko jëlee ci texte yi di ko gën a leeralal nit ñi ngir ñu man koo topp euh, ñetti ngir yëpp muy Ahmed ngiru Ahmed ak ngir muy Ahmad ibn Hanbal ak ngiru Shafi'i yi muy imam Shafi'i ak ngiru imam Malik ñoom dañoo saxal ne dañ koy génne ci ab dund waaye Abu Hanifa muy ki nga xam ne moo njëkk sos ñeenti ngir yu siiw yooyu moo ci njëkk a sosu moo ci jiitu moom dafa wax ne manees man mën naa génn mën nañoo génn njëg gi te loolu ba mu ko waxee yàgg na ndax ñee dañoo xaw a yam rek ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam defoon ak ay ñoñom ca Màkka wala ca Medina ca ca ca Medina sax laay wax ndax Màkka booba loola amagul waaye Abu Hanifa dafa amoon ak dégg ndax lu tax mu am ak dégg loolu sax daanaka du du du waxtaan wi ndax su ma duggee ci waxtaan wi day xaw a sori xaw a yàgg waaye li tax euh, Abu Hanifa am dégg gu yaatu goo xamante ne nii euh, dafa wuute ak ñi nga xam ne dañuy ëpp li ñuy topp ci texte yi euh, mooy que fi mu nekkoon dafa bëri lu dafa bëriwul woon ay texte ak i te da daan jëfandikoo xelam lu baree baree bari te boo ko xoolee ba ca biir wax ji moo gën a yanu maana am na ñoo xam ne ba léegi ci Sénégal ca téere yu njëkk yi jàngale ne dañ koo war a génne ci ab dund ci loole lañuy jàpp ba léegi te jamono jii ñu nekk nattal nit ñaari kiloy pepp mu yóbbu ko wala ceeb euh, lay gën mooy jox ko ko ci xaalis bu ko defee bu amee xaalis boobu dana ca mën a jënd lam soxla lépp te loolu moo gën a yanu maanaa ndax bu ñu xoolee li li ko tax a jóg mooy dimbali nit ki rek ndax bu fekkee ne ci dugub wala ci la ñuy dundee rek la ngay jël jox ko loolee moom day bu ca bu ca amee lam cay am day obligé dem jaayaat ko pour mën a jënd leneen lu mu lu mu soxla coono boobu nag teggeel ko ko jox ko la nga xam ne mooy njëgga loola da cay da cay da cay gën da koy gën a noppaleel kon jàpp naa ne li gën a yanu maanaa gën a déggoog xel gën a déggoog jamono gën a déggoog li tax ñuy génne murum koor mooy génne ko ci ci ci ci li nga xam ne moo moo ëpp ci li ñuy jëfandikoo muy xaalis muy génne njëg gi euh, ñiñ koy joxit mooy ñi nga xam ne Eh, jortu nañ ne bis boobu buñ leen ko joxul danañ loru ba bu jullit ñi di feetu di lekk di naan di bëgg ñoom duñ ko mën a am moo ñooñu la ñuy tuddee alfuqara wal wal wal masakin miskin sax moo gën a sonn faqir ndax faqir am na waaye bariwul waaye miskin mooy ki nga xamante ne daanaka amul amul amul dara jàpp naa ne jàpp naa ne noonu la su ma juumul ci tàqale ñaari baat yooyu eh, léegi nag eh, wan wan waxtu lañ koy génne Euh, ñëpp dëppoo nañ ci ne dañ ko war a génne ci euh, fan yu mujj yi ci ci weeru koor waaye ndax dagan na ñu jiital ko am na ñoo xam ne dañuy xaar ba nga xam ne ba ci bis bi laata ñuy julli ji waaye loolu dama defe ne day xaw a day day day xaw a yéex lool ndax yonent bi sallallahu nee na boo ko joxee laata ñuy julli ji am nga muurum koor waaye boo ko joxee nekk bañ julli ba noppi maanaam ba waxtu julli weesu boobaa amoo murum koor waaye saraxe nga am dara jay saraxe nga am waaye amoo amoo amoo yolu yolu murum koor kon mel na ni yow sa jëf maanaam sa sa sa sa koor ña ko aj ba léegi moo tax e, ñuy soññee ñu joxe ko li gën mooy teel koo joxe mën nañ koo joxe ci e, ci ci ci ci ci laata ñu yegg ci bis booba la ca gën mooy mu jiitu ay fan sax mu jiitu lu mat ñetti fan euh, ba ñi ko soxla mu yegg ci ñoom ba bis boobu buy ñëw ñu mën koo ñu mën koo waajal nañ ko war a waajalee euh, kon hmm, daanaka loolu moo ëppoon solo ci li ñu waroon a waxtaane leeral ko ci ñiñ ko war a jox ak euh, ci luñ ko war a génnee jàpp naa ne xaalis ci gën xanaa kay comme fii ñu nekk ci réewum tubaab yi Eh, nga xam ne nun koy natte ñun lañ jàppoon ne ne ne moom lañ ci ka daan génne dana doy ci kenn pour kenn nit kenn benn bopp bu nekk mooy luy toll ci cinq euros sama juumul trois mille euh, trois mille francs moom lay tollool defe naa ci xaalisu Sénégal loolu lañ jàpp euh, ci ci lañ ko daan génne tamit euh, kon mbokki taalibe yi loolu rek laa bëggoon a leeral tey ñu ngi leen di siyaar bu baax Euh, di leen sant di leen gërëm tamit ci déglu bi ak euh, yaatal bi euh, di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa ñu jeexal ramadaan bi ci jàmm woor ko ci jàmm te mu nangul ñu ko te sàmmal ñu ko te lépp lu nga xam ne tuyaabale ci ak njëggal ak yërmande sunu borom subhaanahu wa sotti ko ci sunu kaw te mbas mi mu jële ko fi te dellu delluwaat nit ñi delluwaat ci seen sago Euh, yërëm ñëpp euh, dimbali ñëpp ci kàttanam ndax kenn kenn amut loo xam ne doy na la ba nga ba nga ba nga doyal ci ndimbalu borom bi subhanahu wa kon daal euh, ñu ngi ñaan ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp tawfiix di ñaan borom bi subhanahu wa mu sàmm ñu aar ñu ba ñu fekke ko ay yooni yooni yoon Euh, te man koo defee ni ko suñu borom santaane te tasee ceeg ngërëmam ndax lu luñ fi gën di yàgg mu nuy gën a dimbali ñu di ko gën di jaamu di ko gën di topp di gën a jiital ci sunu bis ba nga xamante ne nii leneen lu dul jëf ju baax ak jaamu yàlla ak ngërëmam du fa jariñe muy bisub yawmal xiyaam bi nga xam ni ñun ñëpp mu ngi ñuy xaar te lu mu lu mu yàgg-yàgg ala kulli xaal danañ fa dem te ku fa dem doo ñëwaat ndax tukki la bu amul dëpp ndax foofee fa lañ dëkk te ñaari kër rekk fa am muy kër kërug àjjana walla kërug sawara kërug àjjana na it li koy joxe mooy jaamu yàlla gëm yàlla jëf ju baax kërug sawara it la fay yóbbu nit mooy mooy ndigali sunu borom bi subhanahu wa taala ak fooyee sa dund yàlla ñu fi yàlla musal kon ñu ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.